asalaamaaleykum Ndiaga ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la bëggee di la ziar bu wér a wér a di am contentement ci émission bi. Euh, dañuy am satisfaction ndax lii yàggoon nañ ko xaar mu nekk bis boo xamante ne bis bu mag la ñu ci am contentement bu baax a baax a baax a baax ndax salaadam nekk na loo xamante ne tey ñun lii suñu feet la feet bu gën a mag si élevage Saladam la. Euh, dañ ci am satisfaction bu baax a baax a baax a baax a baax di kontaan trop ci e-, e-, exposition bi. non Ndiaga boo xoolee ñun dafa am ci liggéey bu ñu nekk. instant yi dañoo visé benn yoon nekk ci benn liggéey boo xamante ne euh, ñu ngi ci te bis bu sottee rek après gars yi dinañ gis incha allah. Euh, alam bi moom tey boo xoolee ñun euh, am nañ si contentement bu baax a baax a baax ndax gars yi ñëw nañ visiteurs yi ñëw nañ c'est la fête quoi waaw. non instant dañoo dugal ay mal ñu dugal ay mal yoo xamante ne tey ji am nañ si ñoom yaakaar tey boo xoolee ñambe Junior nekk doom ci Dougaynde yaay ji nekk doomu Ganaaraan mu espoir boo xamante ne am nañ ci moom yaakaar trop trop trop trop trop euh, ndax ñoo ngi koy xaar euh, boo xoolee kër ga tamit ku mel ne maaw mi ngi fa di doom ci teranga yaay ji nekk jëy naa fi euh, nga gisaat tamit à côté Joe Biden mu nekk xar boo xamante ne instant mi ngi commencé def ay production am mi ngi commencé gis muy def lu leer waaw loolu la ñuy ñaan yàlla mu continuer rek incha allah. organisation bi ak équipe bu bees bi gars yi li leen warloo ak éleveurs yi def nañ ko ndax wax dëgg yàlla woote yombul ndax tey gaa yi euh, waa association bi woote nañ gars yi wuy si nañ leen waaw te loolu moo nekkoon li am importance waaw affaire yi neex na fête bi bel na trop waaw kon dañ leen di ñaanal rek euh, ñu fi fi ñu bëgg a yegg yàlla yàlla suñu borom moo xam yàlla na fa yàlla yeggale waaw xanaa di santaat yàlla bu baax di remercier sama waa bergerie di remercier sama gaa yi nekk ci foire bi ku ci mel ni sama doomu day Var daa <laughs> ak ñi nga xamante ne tey jii ñoom ñoo ma préparal xar yi ne ma yóbbul man ndax man dañ may yónni rek gars yi dañ may defaral xar yi ba mu baax ne ma demal loolu laa ci am quoi mais maa ngi remercier Seydou Laay sama xarit bi Var ak daa ñoom Amet ñoom Laay tout di wax gars yi ba beneen yoon incha allah